asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi si daan Chupa TV tey ñu ngi del siwaat ak nga xamante ne mooy suñu sëriñ sëriñ Ibrahima Cheikh Ibrahima Lo euh, ñu koy bàyyi mu TV alhamdulilahi rabbil alamin wala xawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim allahuma salli ala sayyidina ñu ngi nuyu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu addina du nuyu nuyu rawatina waa Sénégal ak mboolem ñoo xam ne ñu ngi ñuy topp di ñu seetaan suñu seen bii nii di Shupa TV incha allah rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah. Baye ah keroog waxtaan nañu si lu mel ni hmm. dañuy bëgg avant sax ñuy dugg si dëddale. Hmm. dañuy bëgg wax ci actualité. Hmm. jamono ji. yu bari sax day tas. diggante yu bëri dafay yàqu. Euh, jikko yu bëri dafa yàqu mm-hmm. ndax loolu aussi tey dafa dafa bokk si li yàq réew mi ndax dëddale la see bokk wala wala bokk si waaw alhamdulilah sa laaj boobu nga xam ne jamono yëpp ñu ngi koy laajte parce que nekk na loo xam ne di lëmbee na àddina ma réew mi kese waaye àddina di lëmbee mu muy dëddale mu nekk loo xam ne dafa yàq société parce que société mi ngi fondement mi ngi tabaxoo ci ay nit ñi booloo nekk benn ci communication ci liggéey waaye tamit ci jiima mënal seen bopp dara te société mi ngi commencé ci kër addina bi mënoo ci forme dara lu dul na kër gi moom mooy njëkk a baax léegi kër gi ñi fa nekk jiima fondement fondement famille moom mooy lan moom mooy soxna si ak jëkkër bi muy jëkkër bi ak jabar bi léegi nag ci fekkee jëkkante jëkkër boobu ak jabar boobu noonu problème moo fa am kon boobaa société bi mënagut a baax ndax baaxaay société bi mi ngi commencé ci kër gi. léegi su ko defee nag da ngay gis ñu bëree bëree bëree bëri seen diggante sa jabar ak sa jëkkër jëkkër ak jabar danañ am problème problème bi su fekkee ne seetaan nga ko xool nga ko est-ce que problème bi ba commencé wut ci début ba parce que asraar dafa jàngalee yoon woo xamante ni moom la ñuy tànnee soxna gannaaw bi nga gisee li nga xam ne moom lañuy ñuy lislaam jàngal lu ñu lislaam jàngal gis nañ ko jukk yi nga xam ne moom la ñuy gis ci jigéen tànn ko soxna mais asra dafa am beneen yoon boo xamante ni daf ñu ko wanaat te yoon boobu noonu dëppoo ak lislaam est-ce que yoon boobu noonu laata ngay takk soxna si gis nañ ko ci soxna si wala gisuñ ko ndax gis nañ ko ci yow wala gisuñ ko moom mooy gaaf gaaf dafa gaaf yoo xam ne gaafu sulmaan yu la loolu mënoo ko xam lu ne xam-xamu xuruuf ma moo la ko wan am xam kay gaaf goo xamante ni gaafu zaahir la nit ki dox nga xam ne nit kii nii dox bi muy dox tànk bu pant bii nii am na noom pante am na noom tibbee suuf bi ngeen ne gaa tànk bi dafa gaaf kii sumaande ak moom yàgg yàgg ay problème lay nekk ak moom. walla koo xamante ni ci gémmiñ ba wala ci bët ba wala ci nopp ba wala ci biir ba wala bi nga ko gisee bees manifestation bu mu njëkk def ak yow fekk mag jax jàngal na la jox la ay ay junju na la su defee lii baax na su defee lii baax na loolu ci gaaf yi nga xamante ni yu njëkk war a seet la ci jigéen bi avant ay góor gi di ko takk. am na beneen gaaf boo xamante ni tamit gaafu baatin la moom mooy lan parce que est-ce que yow jigéen bi nii biddiwam ak sa biddiwee ñaar ànd na su fekkee yow sa biddiw dafa sedd guy moom biddiw tàng jir loo wax mu xapp ci safara. loo wax mu xëpp ci safara soo waxee baat bu sedd baat bu oyof moom mu wax ci loo xamante ni yow soo ko déggee bëgg a rendi sa bopp mu dee loolu su ko dëkkee ak yow yàgg-yàgg dëdd la rek moo fay nekk te dëddle bi du jógee ko ci kenn ci gaaf ga la bi jógee ci yow. souvent nag am na beneen dëddle boo xamante ni dëddle rab la jigéen bi moom mooy am rab léegi su fekkee ne borom rab la nuy xamee ne borom rab la da ngay gis su tëddee ak yow da ngay gis ne dafay daal di raf rek di raf rek yaram bi di daw rek ba yow da ngay kii lu muy raf lan la. dafay raf rek di raf rek souvent mën na waxtaan a yow léegi xolam sedd léegi mu dugg ci waa ñu laata muy génnaan gis xol bi commencé di tàng di tourner commencé di tàng di tourner ba mu commencé énervé ba yow dangay ngay xam ne kii jëmmam sens na loolu su ko defee si yàggee ak moom dafay dem yàgg dafay occupé xol bi waxtu occupé xol bi wax ju neex. yaa ngi dégg jëf bu neex dootul am di sa diggante yow ak moom bu yàggee nga kaas waxtu woo kaasee rab bi dikk may ko pouvoir te pouvoir boobu noonu waxtu ko rab bi may da ngay gis ne dëdd la dafay daal di am sa parce que yéen ñaar dootu leen déggoo lu tax déggoowu leen dëdd la ba mu ngi jógee ko ci rab bi. yaa ngi dégg noonu la dëdd la amee tamit ci soytaan soytaan moom mooy lan moom mooy ne dëgg nga liggéeyu jàmbur tax xamoo ne fekk na sax xamoo ne liggéey la wala génn nga nga sàggan. ba ngelaw naaw ngelaw boo xamante ni ngelawu seytaan la mu dugg la mu dikk ci kër gi bi nga dikkee ci kër gi nga jaxasoo jana ko su ko defee feek jëkkër bi xamul ne kii ngelawu seytaan moo ko dugg mën ngaa jaxasoo nga wax bu nekk mën nga sos mën nga def lu nekk su ko defee problème du diggante su ko defee yéen ñaar déggoowut leen nga dem ne moom mu def ne fekk lu waral loolu moom mooy leen ngelawu seytaan moom moo la dugg am na dëddale boo xamante ni nit ak noppam ak bëtam moom moo koy def may doomu aadama nga jël sa xalimba nga bind ñu jox la jëlal turu yi ak turu sàmba nga jël turu nogay ak turu sàmba su ko defee léegi nga bindi xawaatim bi ngay bindi su ko defee nga def leen ci bërëb yi nga xamante ni moom la ñuy bëgg nga def ko su ko defee feeg xaatim boobu mu ngi foofu noonu moo xam yàqu na wala yàquwut diggante boobu ba ci yàlla nu xaj di ñàkk andee ak muus dana ko ñàkk andee ak yow fu la gis fu nekk xol bi day tàng fu la gis fu nekk mënatu gis ci yow mbaax loo ko jëfal lu mu rëy rëy rëy mënta gis na lii teraanga la loo ko wax lu mu neex neex neex mënta gis na lii teraanga la loo ko jox soo ko joxoon àddina bi yépp moom mënta gis li nga ko jox li nga koy jox dafay yem nii topp tibb tibb suuf ci loxoom bi sa parce que da koy xeeb. loolu yi tamit boobaa dëddale la boo xam ne nit moom moo ko def moom mooy sëriñ loolu nag moom moo gën a bëri ci jamono jii nii ak bi ma la njëkk wax muy dëddale xamante ni dëddale rab la. Hmm. waaw ñu gis ne euh, jamono ji sëriñ si bëri nañ lool. kenn ku ci nekk ak euh, fa ngay génn léeg-léeg ngay dégg nii kii damay faj rab damay faj seytaan maanaam ci pëccëxoo gi ci ci ci wàllu ñaan mm-hmm. maanaam bëri na bëri ko aay boo xam ne si doo mën a xam ndax kii mooy ko ay gi wala kii mooy ko mën ki loolu a ana naka lañ koy mën a ràññewee ci ci ci jëlee ko ci fi nga doon leeral sànq ci wàllu faj ci wàllu faj ci wàllu comprendre mu bu baax question bi mm-hmm. euh, fi nga doon leeral ci wàllu rab mm-hmm. nit maanaam ci ki koy ki nga xam ne moo koy faj. Mhm. comme euh, ma xe exemple comme yow. Mhm. benn si yow léegi bëri na ñoo xam ne si nii. Mhm. Euh, dañuy faj. te kenn mënuñu ràññee nag kii moo mën wala kële moo mën. pëcc xoogi. ci wàllu sëriñ si. foofu laay waxee maanaam loolu ah naka doomu aadama di ko war a ràññeewee ba xam ne kii moo mën. ndax kii moo mën a faj wàllu rab. waaw wala déet. waaw loolu tawfiq bi yàlla rek moom moo ciy nekk. nit ku mën a faj ak nit ku mënta faj mënoo jax mënoo ko xam mënoo ko xàmmee lu dul ne da ngaa jaxasoog moom mu sangat la ba nga gis résultat mais nga tim ko nii ci jëmmam nii rek su fekkee nekk wëlu yàlla ma ko xam nit ku nekk ci li nga nekk su fekkee ne nit ñëwal na la ca nit ku la ñëwal mu war na am yëg-yëg ni kii li muy def nii xam na ko li muy def nii maîtriser na ko mu ngi déparé ci seet ba ci listaxaar ba foofu lay déparé parce que su fekkee seetal na la génneel na la sa fee sa sa sa sa feebar nga xam ne kii lim ma wax dëgg la te lim ma wax nii tamit lu kenn mënta dindi la ci man ba pare kooku taxaw na la lii mën naa koo dindi damay wax ne kàddu dëgg waxtu wu jógee da ngay gis ne sa xol bi da koy nangu sa roxo da koy nangu da ngay yëg ne kii lii mu wax nii dëgg la ci yow dëgg la te mën na ko su ko defee mu commencé ak yow cangat bi moom itamit mu dawal ragal yàlla su ko defee boofu foofu foo waa ji mënta jaar da ngay gis ne yàlla da koy nangu waaye nag kantaana client bi xam ne kii mën na wala mënut loolu moom mi ngi mi ngi am après sangat yi mu defal la listixaar jox la ay sangat nga daal di sangu sangu sangu sangu ba sonn gisoo résultat si ngay xam ne ne kii mënut wala yéen ñaar seen ruxaaniyaat àndoowuñ moom mënut la sangat léegi nag dafay des nag ci sëriñ bi su ko defee soo demee ci saalum bi mu dëkk sëriñ ci mag ci fa nekk soo ñëwee andi leen benn feebar ñoom mën nañ la seet xam feebar bu nekk ci yow waaye da ngay dégg ñi reetaan ñu la man duuma sa sëriñ parce que xam naa feebar bi waaye man mekk ne man maa koy faj man mënuma ko faj léegi nag su fekkee ne nag seen rawxaan bu baax ñëwal na leen ñu la mënuma la faj de waaye soo demee dëkk sangam ci diw sangam fekk xamuñ diw diw sangam ak dëkk boobu de mais xaan yaat bi moo leen di wax na leen dëkk sangam diw sangam nit mu mu fa soo demee diw mii moom mooy faj feebarab diw bii su fekkee duwut moom dafay deyaale ak moom su ko defee mu wax la loolu waaye nag dafay fekk sëriñ boobu ragal yàlla. itamit xam valeur li muy liggéey su fekkee sëriñ bi ragalul yàlla xamut valeur li muy liggéey kooku xaalis bi la topp wala bànneexu àddina bi la topp ku ko dee kooku da lay laaj encaisse la li mu lay encaisse jox la li mu lay jox moom xoolut baax naa baaxut moom jàpp na ne yow ku egsi ci moom nga rek dafa war a jëriñu ci yow waaye war su warta demee noonu loolu sëriñ bu koy liggéey bu nekk war ngaa ragal yàlla ci li ngay def ragal ci mbindeefe yàlla bi ci li ngay def te nga xam ne àddina benn fan la àddina benn fan la sama sëriñ dafay faral di wax ne àddina julli kese la diggante liqaam noddu ak liqaam rek la yaa ngi dégg diggante noddu ak liqaam dara xajut fa àddina diggante noddu ak liqaam kese la su ko defee lum gatt gàtt nga bàyyi ci xel ragal ci yàlla jëf ci lu baax mu nekk yóbbal nga yóbbaale ko su ko defee loolu daal moom moo résultat ci côté boobu noonu ngay waxee waaw ba si mbirum dëddale la lañ jëmati hmm. euh, gis nañ ni hmm. euh, ginnaaw ba président yi toog président yi nga xamante ne am na fal laay ministre am xoolee ñi fi nekkoon parti au pouvoir jóge fi mais ñoo xam ne ñoo xam ne ne ba léegi ay waxkat ñoo fi ba tey hmm. ku ci mel ni Ahmed Sidam Camara hmm. moom jóge na AFP dàq nañ ko AFP mu dem APR boobu ba léegi amu ci dara waaye teewul ne ba léegi ñoo ngi wax bëgg dëddale ñi nga xamante ne mooy ñi nekk ci au pouvoir jamono ji nii nii ndax tey loolu noonu tey la la mu wax si ñi koo xam ne dafay jug pour yàq rek waaw kooku su fekkee da ngaa dem ci cadre l'islam kooku dañ koy boole ci naafeq yi parce que boobaa dëddile boobu nu dëddile lan la dëddile bi wax la làmmañ di woo bon ba nit ñi bonloo ko fekk na kooku bonul loolu fen la sallallahu alayhi wa dañoo jàngaloon ne jaami yàlla yi yéen maa ngi leen di woytuloo fen iyaakum wal kisbu fa inal kasiba yaxdi ilal fujuri wa inal fujura yaxdi ilal naari yéen mi def yàlla yi maa ngi leen di oytuloo ngeen di fen fen mooy lan nga dem ci sàmba ne ko nogoy ku bon la ndax nangam ak nangam la jëf ak man nangam ak nangam la wax ne moom la pare jëf ko ak yow pour sàmba moomu noonu mën a infiraaj mën a daw nogoy su ko dee nogoy moomu am mer ci sàmba sàmba yi tamit am mer ci nogoy nga dem ci keneen dem ci keneen dem ci keneen loolu dëddile boobu noonu dëddileb la kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na xam ne moom naar feq la nag nit ñi biral na diw mii naar feq la te nee na naar feq këram bés penc yàlla moom mooy safara kooku naar feq la su ko defee kooku noonu ñu ngi ci musul yàlla yan yàlla musul ci su ko defee nag leneen li waa ji la waa la engagé moom mooy ne bi nga ñàqee fayda ba nit dikk di dëddileeg yow ak sa soppe wala nit dikk di dëddileeg yow ak sa xarit ci làmmañ nga nangu ko déglu gëm ko kooku des na ci yow waaye su ko defee léegi moom lislaam moom leen loolu moom loolu la caatte su fekkoon nag beneen sens contraire ba la boobaa baatin am na ci cër mooy nga xam ne diw mii nii dafa jóg pour yàqal ma man boobaa yow mën nga jóg ci ay mbiram fekk ne jóg bi ngay jóg ci ay mbiram nekku na jógug lor la nooy jógee ci moom moom mooy ne da ngay jóg ñaan lu yàlla ci moom sa diggante yow ak moom ngir mu téye làmmiñam bi say lor ak say musiba yow mu téye laa mañam bi ci ay loroom ak ay musibaam ba ay loroom duñ la dal ba ay musibaam duñ la dal su ko defee kooku noonu yow liggéeyoo ko pour mu yàq waaye da nga koo liggéey ngir protéger sa bopp ak protéger ko moom su ko defee loolu moom baatin mën na ko nangu. Hmm. léegi si euh, ba léegi si mbirum politique tey tey tey dëddale ndax tey dina yomb si ñi nga xamante ne ay euh, ay politiciens lañu wala ay artistes wala ne si suuf bi lañ nekk ndax yomb dinañ dinañ yomb bu baax a baax a baax ñoom ñoo gën a yomb dëddale. parce que tey boo doon a gaaw bu wax tey man damay wax ne xam-xam yëppoo gaaw xam-xam bu ñuul bi gaaw na xam-xam bu weex bi gaaw na. yow benn benn boo xamante ne rek bu ko defee tey mën na dëddale doomu aadama. gis nga bopp muus ngeen baal ma waaye ci xam-xam musulmaan wi la xam-xam la ñuy waxtaanee amul kenn koo xam ne yaa ngi koy bëgg dëddaleeg nit ak lum foor foor foor lu daraja ba foor foor nay buur nay homme d'affaires nay femme d'affaires na dem fu ne ci sëriñ bu ne su fekkee xam nga dara ci boppam muus boppam muus mu ñuul boo xamante ni muusam armel la boobu sax moo gën a garaawati nga sox ci turam sox ci liñ ciy sox dugal ko fa nga koy dugal billahi wallahi wa taala amul kenn lum garaaw garaaw garaaw garaaw lu ne la nga ko bëgg a dëddalee da ko ko dëddalee force xel mi dana ko ba xol bi dana ko ba ruuxu gi dana ko ba jëmm ji dana ko ba mu koy neex dana ko ba mu koy naqari dana ko ba muy neex ay mbokkam dana ko ba muy naqari ay mbokkam dana ko ba nit ku mënta doon dañ lay dëddale ak li nga bëgg ak koo mën a doon parce que nit kese nga léegi nag kii lay dëddale ak loolu ndax am na capacité dëddale la ak loolu wala amul ko la xam-xamam yegg na ci man laa dëddale wala xam-xamam yeggu ci man laa dëddale su fekkee ne yow da ngaa pere sa bopp am ay àndandoo yu pere seen bopp kooku suñ la bëggee dëddale ak loolu ku lay dëddale moom itamit dina am ay rawxaan yu am doole am ay xudaam yu am doole am ay jinne yu am doole su ko dee su la engagé du la engagé moom nit personnellement waaye dana la engagé moom nit personnellement ak xam-xamam nit engagé ak ay jinne ak xam-xami jinne ànd la engagé la ak rawxaan yi ak xam yi su ko defee su la attaqué benn fan ñaari fan ñetti fan ci fan yu ñuul yi balaa fan yu weexee rek nga gis ne yow nga tàggoog sa sogo ak ku mën a doon waaw su ko defee kooku noonu mën nga koo engagé mën nga ko def li nga bëgg a def waaye nag dafay fekk ne nag yow tamit nga xam bagage yoo dimbali ko waaye fekkee nit personnellement nit nit nga nii rek mu pare ci boppam da ngay engagé fii ba suba doo mën ci moom dara waaye nag da ngay am xam-xam am yeneen ndollal su ko defee xam sulmaan yu yaa ngi dégg xam nooraani yu xam biddiw yi leer yi xam biddiw yi lëndëm yi su ko defee nga xam biddiwam ci biddiw yi leer yi xam yi tamit heure am ci wax ci ci ci ci ci ci biddiw yu ñuul yi su ko defee nag heure yooyu noonu ngay jóg di engagé ak moom di xeex moom di xeex moom su ko defee nga koy jat ñii ñii am na ñoo xam ne dañuy jat am na ñoo xam ne dañuy wirta am na ñoo xamante ni dañuy tuur ay sarax am na ñoo xamante ni façon bu nekk lañ koy jàppee ba keroog bés bu ñu koy jàpp waaye ci fan yi gaaw laay doon su fekkee ne yow xam nga li ngay def mën nga li ngay def